ah gone gi doon yëngu waa nañu man mii sama morom yaa dama wax fu may tuur ndox fu mu tuur ndox. ngeen am gàllankoor man soxla seen boppam la moo fi ñëw. boppam la. lu mu demee sax. wax it ku nekk lu mu jàng nii di wax nii te lépp bu leen tànnal mu demee noonu. am ñaan la daal ñaan nga war a jaay de gis ngeen li ma mu naan day woor ah dafa war a ah, moom su wooree doom ji dee léegi lan lay wax. ok papa mhm. hmm. hmm. kifaaya. ak fardu naxin. naxin. waaw. Ah. même ki xam ne sax. daa màgget amul kàttan woor. bu bu ñuy woor dañ ko koy jégal waaye moom day day joxe mu. waa tonton. Mhm. dama ñëw laaj la lan mooy mukallaf ak lan moo ko waral. Ramadan a ngi. weeru yërmande Ramadan weeru njëggal